xaro yéene gi di réew mi quotidien nee na en tout cas ñu ci ak njàmpe la xaro waaye nag mbir mi jamono ci xel daan ci tey mbir mu doy waar a doy waar yéene kaay gi nee na ñi nga xam ne ñooy waa police képp koo xam ne dañu la garde à vue ñoo la war a bët yéene kaay gi di vox populi xëy duñu xibaar naan ñu njàmpe gi nga xam ne moom la wax ne Abdou Faye ci la xaro en tout cas njàmpe kooki rëggul ñi nga xam ne ñooy waa police ba ñu seet wecce ndax am na ñoo xam ne la taskatu xabaar yi waa police tamit nee nañu danañu wax yéen a gi ñu xëy fekk fa Seydi Gassama mi nga xam ne moo jiite Amnesty International section Sénégal nee na lépp li nga xam ne xew na ci commissariat central ba Abdou Faye ñàkk bakkanam police mooy responsable waaye nag jamono ji li nga xam ne moom la ñuy a di lay ne moom la gars dafa xaru loolee ñu bare bari daal dañu koy dàq waaye nag ci ay xibaar nee nañu Abdou Faye moomee nga xam ne tuumal nañ ko loola ki nga xam ne mooy femme de ménage bi ménage commissariat central moo xëy suba cuuy daal di gis Abdou Faye mu daal di tëdd ñàkk bakkanaam yéene kaay gi di réew mi quotidien nee na en tout cas li ñi nga xam ne ñooy faatu ci commissariat yi bëri na lool ci Sénégal yéene kaay gi di leen foo xëy di ko lima nee na am na ku ñuy wax Aïcha Camara ci commissariat yi la faatu am na ko ñuy wax Abdou am na ko ñuy wax Abdoulaye Wade am na ko ñuy wax Elimane Touré am na ku ñuy wax Dominique Lopi am na ku ñuy wax Aline Badara Diop am na ku ñuy wax Pape Sarr Guy Marius Sagna ci biir yéene gi nee na poste de police gi léegi ay cimetière la ndax ñu bare bari ñoo ci ñàkk seen bakan yéen a kaay gi di vox xëy di ñu xibaar naan ñu maître Abdoulaye Babou mi nga xam ne moo amoon ay giitangaas ak benn cay procureur ca tribunal bu Diourbel maître Abdoulaye Babou kuréel gi nga xam ne moo ëmb avocat yi Sénégal daan nay jël ay daan lal ko ci ak ndoddaam jamono ji ko koo suspendre maanaam nag du def métier mii nga xam ne mooy métier avocat en attendant yéen a kaay gi di la sa xëy di ñu xibaar naan ñu violence yi nga xam ne moom la ñu nemmee ko fan yi ñu génn ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu yàqate li nga xam ne mooy restaurant argentin Maguette Sène mi nga xam ne moom lañ dénk kuddu nee na nag ñi nga xam ne ñoo def ñaawteef kooku daal dinañu leen yóbbu fa mbaxana doonee benn jël ay daan lal ko ci seenu ndodd yéene kaay gii di réew mi quotidien xëy na ci njuuj njaaj gi nga xamante ni moo am ci visite technique yi ak faux hologramme yi nga xam ne ñu bari moom lañ leen di jox yéene kaay gi xëy dañu xibaar naan ñu prestataire yi nga xam ne ñoo nekk ci Senelec a Kaolack niki démb amal nag ay manifestation bëri na ñoo xam ne tegoon nañu leen fa loxo kilifa bu yaana mara ba léegi ñoo ko teg loxo yéene kaay gi di libération xëy xibaar naan ñu yi jamono ji gi maanaam ma ngi mel ne tulleeg maa la ci réew mi ndax lu toll ci juróom-ñaar ci ay fan am na lu toll ci fukk ak ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan accident yi nag ci camion yi ak oto sept places yi si la ko gën a nemmee ko yéene kaay gi di direct news xëy duñu xibaar naan ñu Adama Faye mi nga xam ne fan yi ñu kenn moo attaqué Macky Sall song ko yekk ko musiba ak mbelengaana jëmonu ji nag waa APR lan la ñuy xaar ngir jël ay daana ko ci ki nga xam ne mooy Adama Faye waaye nag li nga xam ne moom la ñu nemmee ko maanaam silence rajo répondeur nga xam ne ñoom lañ doon gis ñuy tontu amul kenn ko koo xam ne tontu na ci Adama Faye ak insulteur automatique yi ñi nga xamante ni képp koo xam ne mos nga wax dara ñu génn saase daat lay saaga mbaadu nag Adama Faye moomu maanaam intouchable la yéen kaay gii di la tribunal xëy duñu xibaar naan ñu guerre bi ci élection locale yi jamono ji commencé na Ndakaaru la commencé ak ci biir réew mi na njiitu réew mi di président Macky Sall jamono ji nag dafa mel ni maanaam sol na daal yére directeur campagne yu Benno Bokk Yaakaar maître Abdoulaye Wade moom te ma ngi waajal bu baax a baax li nga xam ne mooy élection locale yi ndax ma ngi soppi aw doxina ma ngi jël ay décision yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu dossier bi nga xam ne moo jëm ci ñu baal réewu Afrique yi seen bor yi ji dossier bi Youssou Ndour ak ñi xam ne ñoom la àndal daan nañu koy dugal ci soobee CGT yéenekaay gi di Rewmi Quotidien ak L'As ak Vox Populi ak Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu opération bi nga xam ne kaay doon nañu ko def am na lu toll ci ñeent cay tonu faux médicament yoo xam ne teg nañu ko loxo yéenekaay gi di Stades naan ñu nag bala ñuy